mbokk yi euh, ñu ngi leen di nuyu di leen euh, tënkal lu ndajeek ndajeel ba nga xam ne moom moo ëmb jiite kujje politique bi te ñëpp daanaka fekke ko wala seeni ndaw teew. ñu bokk ci FRN muy ñu bokk ci m d muy ñu bokk bokk ci société civile di ay sénégalais yoo xam ne doomu réew mi te xam ne réew mi moo woote ñu ñëw wuyu si ndax bu ñu fàttalikoo bu ñu génnee élection présidentielle yi ñu wees élection daf ko tënk ci ab loi boo xam ne dañ ko tuddee parrainage te mu jëlee ko woon ci anam yoo xam ne ñu bëri d'accorduñ ci woon mu xam ne élection am ci boppam dañ ko daal di contesté mu woote dialogue mu ne léegi nag njuuj njaaj bi jeex na wax devant sénégalais yi ak devant kilifa diine yeeg kilifa aadana yi ak askan wi yëpp njuut njuuj njaaj ji jeex na léegi nañu waxtaan waxtaan goo xam ne ëllëgu Sénégal lañ ci waajal te ñu bëri jàppoon ni comme du am deuxième mandat troisième mandat amaana mun na xalaat mu am lu fipp ci moom mu liggéeyal Sénégal waajal Sénégal pour ëllëg am ñoo xam ne nangu nañu ñu nangu wooteem boobu donte ni wóoluwuñ ko waaye gannaaw ñaari at waxtaan communité internationale bi jàpp ci parce que dañu woo ñoo xam ne duñu ay sénégalais farañu sàmba farañu kujje gi farañu ñu nekk ci nguur gi ñu tànn leen ci seen mandute am ñu ci jàpp ci seen koppar alalu Sénégal wala bu ñu jàppale Sénégal ci tu lu tollook Euh, juróomi téeméeri million ñu daal di koy dépensé ñoo ñu def ay tegtal yoo xam ne ay dénkaane yoo xam ne bu ñu seetee réewu Afrique yu bëri jàllale nañ ko lu mel ni bulletin unique wala lu mel ni euh, euh, parrainage yi niñ koy doxale wala caution wala article L 31 ak L 32 bi nga xam ne amul fenn ci àddina bi lu muy foo bëgg a faagaagal démocratie ñu ne lii dañ ko fi seppi. président la république moom ak ay nitam ci biir waxtaan bi ñu ne loolu ñoom mënuñ ci d'accord ñu dialogue bi bind ko 29 juin pour wax ni comme da nga ne woon lépp lu ñu d'accord te muy jëmale Sénégal ci kanam di nga ko xaatim lii nekk day jëmale Sénégal ci kanam parce que Afrique yëpp d'accord nañ ci lan nga ci wax ba tey tontuwul waaye tontoom mooy def projet de loi boo xam ne Euh, lundi lañ ko adopté proposé ko en urgence assemblée nationale mooy rek forme boo xam ne day wane ni dialogue bi nga xam ne moom la doon woote nekku ci parce que bu la ay kilifa bindee nga war a tontu doo tontu yóbbu loi bi nga xam ne kenn d'accordul ci li ci nekk wala liñ ci d'accord bëriwul nga yóbbu ko assemblée ne dañ koy voté ci procédure urgence loo tax opposition bi yëpp daje fi nii lu ñu doon séentu ci muy euh, demaleeg démocratie Sénégal ci kanam suqali ko moom li mu waxoon mu ngi ci mooy néew ci njuuj njaaj waaye musul denc ci njuuj njaaj ci gis nañ ko donc li ñu tënk fii tey mooy benn dinañ yebal ay délégation ñu dem ci kilifa diine yi ak kilifa yu nekk ci réew yuy motal waxal yépp wax ak ñoom ndax ba muy ubbi dialogue bi ñoo ñëpp waxtaanoon ak ñooñu bëgg leen yóbbaale pour dialogue bi antu waaye lépp pour arriver ci résultat bi dinañu woo organisation société civile yi ak organisation force vive nation bi yëpp muy syndicat yi muy ñëpp ñoo xam ne Sénégal ñor la leen te gis nañu que démocratie bi ñu ngi koy faagaagal ñuy ñëw te wuyu pour waajal benn jataay joo xam ne comme président nee na moom xamul jalo te logique boobu mu nekkoon réduire l'opposition à sa plus simple expression moom la nekk ba tey mayu ñu benn donc benn choix lu muy jàmmaarlook moom donc bu boobaa ñun tamit dinañu waxtaan dem giseek ñu ñu war a gisee waxtaan ak ñu ñu war a gis waxtaan nañu sénégalais yi nañu suñuy organisation yëpp nañu mm, force vive de la nation bi yëpp fekk si te déglu dinañ leen woo wax wax leen lan la euh, doxalin boobu lan la lan lay mujj jur suñu ñu ñu teewaloon ci ndaje yooyu metti woon na loolu plénipotentiaire yi ñaari at ñu fay dem di dikk ñu ne di wax ni jaloog bi perte de temps la euh, ku nekk àddu ci dialogue bi perte de temps la waaye du perte de temps parce que gën a wone effectivement lan mooy nature président de la république Macky loolu dañ ko war a denc te xam ne fu mu ñu woo du suñu coobare du suñu choix waaye deux ans de dialogue ñëpp ni nii Macky Sall du nit ku koo xam ne mën nañ ci dialogue mu ñëw résulter lii amuñu beneen choix lu muy accepter mu faagaagal démocratie parce que article L31 ak article L32 benn exemple rek mooy ku nekk ci ñun fii ak keneen citoyen bu mu munta doon mun na ci benn bu ñu la dóoree deux mois sursis bokkutoo ci mënutoo daje ba sa ngiru dund munutoo bokk ci ay jongante loolu mu ñun munu mënuñu joxe exemple bu gën a simple loolu que taxawaayam mooy jéem a faagaagal démocratie te am na ñoo xam ne déjà ñu ngi ci pro listam sursitaire bi nga xam ne teg na ko pour faagaagal kilifa diir kilifa politique yooyu pour ñu bañ a bokk ci prochaine élection loolu kenn waru ko nangu te kenn du ko nangu te du ñu wax ni sénégalais yi ñu doon ci suñu génération bi fekke loolu nangu nañ ko ñu leen di gërëm di leen sant